بسم الإله ينمو النهاي بلا مناي ولا انتهاي حمدا لربي خير مربي قدر ما قلبي بالاقتداء لو سكوري بلا كفوري وهو النسير منه فداي لو اقتربي للاقتراب لو خطابي لك ردائي لك سنائي لك التجائي ما جدائي يا من سباني يا من حماني هما جفاني بمهودائي أسبل ستوني لا مبلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح خديم الرسول وأصحابه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 nga jàng Fatiha ak salaatu ala nabi dafay mel ni si suñ maam jooju mi ngi mi ngi ci biir kër gi ndaw yi ak kilifa yi ñoo ñoo ñoo ñoo ko waral yàlla na fi suñu def barke yokk barke am na ba noppi sax waaye mu yokk barke bi guddal fan yi wéral cëri yokk xewali ba ba yéene yi kookee bu baax ñu ngi lay nuyu di la ziar ci turu Serigne Bassir Lo mu fi nekk Serigne Dame Abdourahmane Lo ak mboolem njaboot Serigne Dame Abdourahmane Lo gi yëpp mu ngi ne nga jottali ko ko ci ki fi nekk Cheikhul Khadim Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu Cheikh Mouhamadoul Bassir mu ngi koy ziar di leen ziare ci bésu tedd bi nga xam ne bisu sëñ Daam Abdourahmane loola nga xam ne mooy bis bi nga xam ne bi sëñ bi jógee ca yéen Jolof jëm njaareem jaar fi eh, am fi ñaari fan soo ko jàll njaareem xam naa am nay kii waaye eh, pour gàttal rek loolu moo moo waral bis bi nee nag mi ngi sant ci taxawaay bi ndax kenn ku ne xam ne li nga xam ne moom la leen seex moom lu mun daxaar dénk ci mbirum daari alxuraan karim ngeen di ko taxaw taxawaay bu mat sëkk nee loolu mi ngi ci santaat yàlla bu baax a baax di leen di sant ndax xam na seen seen jot bariwul seen it bari na waaye moom mën ngeen a yónni rek yónnee rek waaye lii ngeen def nii dafa ci moom lool loolu day day delluwaat ci rek sa waajur bu tedd Cheikh Modou Fadal ko sëñ seen waxee léegi kenn ku ne xam na eh, cër yu amoon fii ak ni mu fonkoon sëñ Abdourahmane Lo xam leen boole muy Seexul Xadim waaye mu am cër mu ko joxoon sëñ daam defe woon ko kilifa di digganteem ak Seexul Xadim ndax xam na wàccuwaay bi mu digg bi amul Seexul Xadim ak li ko suñu borom defal ci digganteem Seexul Xadim ci ci taalibe ga ak maanaam doon doon doon doon doomi Seexul Xadim waaye waaye nag te taalibe ga dafa jegewoon dayo waaw ci loolu lépp rek daje ci moom kon nag bu ngeen teewee fii day mel ne. Cheikh Modou Fadal moo teew jataay bi kon nag nee na mi ngi sàkku ci yéen ngeen ñaan ci bàkke Cheikhul Khadim ak Cheikh Modou Fadal euh, suñ borom euh, képp ko fi teew suñ borom faj ay ajoom euh, di di di sant baax a baax nag ni ko sëñ Xoseen waxe mboole mbokk yi nga xam ne mm, bi bis bi tàmbalee ba tey ñu ngi taxaw ci mm, kenn ku nekk lu man ci alxuraanul karim ndax euh, kenn ku ne xam ne xam ngeen ne sëñ Abdou Rahmane Lo euh, yittim euh, bisam alxuraan moo ci war a jiitu ndax loolu la ko Seexul Xadim indiwoon ci batab bu tedd bi sañ ko tudd ko Daaru Alimul Xabiir gannaaw ba mu liggéeyee liggéeyal yàlla ci Seexul Xadim ba am gërëmam Seexul Xadim soppi ko soppal ko liggéey bi indi ko fii indi ko Daaru Alimul Xabiir dénk dénk ko alxuraan nga xam kon euh, ni mu ko njëkk a jox ci ay ci ay ci ñu mu jàngal nag seen wàjju tedd ca la bokk ak magam Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Basir ak yeneen mbokki ñi nga xam ne ñooy mbokki sëñ bi sëñ Modou Mamoun euh, ak sëñ Abdoulahi borom dër bi ba ci Cheikh Mourtala ba Cheikh Abdou kon loolu day wane na rek moom la nga xam moo la ko sëñ bi euh, taxawaan mu mu mu indi ko fi mm, defe na ko ni ko sëñ bëgge woon kon nag si seen jataay bi jataay la boo xam ne euh, am nañ euh, rafet nañ jot ci ci jataay baax a baax leen ñaan suñu borom guddal seen fan mu ànd ak wér ndax xam nañ seen yitte waaw xam nañ ne lu xew ci lu xew ci barab yi rawatina barab bii di ngeen ko def mu seen yitte ndax xam nañ barab bi euh, wàccuwaay bi bi mu am ci yéen ak ni mu ko fekk li ngeen ko fanke loolu da day delluwaat rek ci seen seen seen waajur ni ni meloon ak sëñ Abdourahmane loolu kon daal kaddu yi daal kaddu yoo la waxoon sëñ bi waxoon nañu jotti leen ko eh, ñu ngi sant bokk yëpp nag mboolem njaboot sëñ Abdourahmane Lo gi eh, bokk yi kër gu nekk rek am na ko fi teewal bu ñu sañoon bu ñu sañoon te ñun ñëppay ñëw kër gu nekk am na ci ku ko ci ci bi kon nag ñu ngi sant di leen di sant bu baax di gërëm di sant eh, mbokk yi nga xam ne ñoo taxaw ñoo taxaw ñoo doon taxaw liggéey bi monsieur Ousseynou ak ñu ngi ko àndal waaw taxaw nañ ci taxawaay bu mat sëkk. ba ndax ba mu tàmbalee rek bis bu njëkkee bis bu njëkkee daje fii ci ci barab bi la ne sëñ sëñ Abdou Rahmane Lo li war a jiitu ci moom mooy alxuraan karim waaye buñ ci àggee sëñ Amadou Xabaan mi nga xam ne moom la sëñ bi dénk alx dénk daa daal dañ koy teel a yëgal bu defee bu ko yitteem bu ko bu ko jot gi mu teew fi te xam nañ loolu ba ba nga ko yëgee rek xam ne loolu sa sa sa sa la ndax sa jot bëriwul xam ne sa jot bëriwul waaye lii nag yitte la ñu ngi lay ziar bu baax di ziar sëñ Abul Baraka mu Cheikh Mamadou Fadal di ko ñaan suñu borom guddal fanam waaw loolu kàddu yi daal sëñ waxoon jot leen ko ñaan suñu borom guddal seen fan سند جهادي زد عبادي أبيت زادي ما لداي لك رجوعي ما جموعي بغير جوعي ولا خطاي لك التفاتي هذا سلاتي بعد سلاتي ما سناي عنك رديت بك النسيت كما غنيت الغناء لك امتداء يا ذا السلاء يا ذا الفناء يا ذا الغناء فيك أنادي كل البلاد لسر عبادي بعد الغماء فيك موت ما قد جنيت فيك ابتغيت خير النماء فيك سهابي فيك إيابي بلا اغتراب لك انتمائي سرسدابي هدى جنابي بلا كابي ولا هبائي أجل وكرم من بك عازم على دمائي بك أقول بك أفيد يا من يسود ذوي السقايا